jërë ngeen jëf euh, monsieur les journalistes maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp maa ngi tudd madame la maire Fatou Ndiaye première adjointe au maire à la commune de Pikine Nord. waaw ah, jërë ngeen jëf tey dañu ñëwoon ci journée de solidarité bi nga xam ne tey doon ko bokk ak suñu partenaire ASN e, e yi nga xam ni ñoo ñëw tey fii Pikine Nord ñu ànd ci ak la commune de Pikine Nord ak le projet zéro mendicité bi nga xam ne moo ngi ci biir Pikine bi. ñu taxaw fi tey représenté la mu le mi nga xam ne tey dafa demoom ci yu mel nii yoo xam ne ay convention la yu mu signé ji pour Pikine Nord euh, kon du ñu def rek du dul teewal ko ci bés bi nin ci war a teewee macha allah taxawaay bi macha allah te lii defuñu ko lu dul une semaine même pas une semaine vendredi passé lañ ko def initiative bi organiser ko tey mu am réussite bu mel nii euh, mais dañuy Pikine Nord moom commune la boo xam ne loo fi jaay bu ëtt déwénee da koy gis mu gën a jar dañuy ñaan yàlla bu déwénee bis bi fii mu toll nii ci réussite ni ñaan mu gën a yokk incha allah. déedéet Tidiane jaara yi du danoo yokk ci kaw 40 yi ni recensé woon. dafa am ñoo xam ne biir Pikine Nord la ñu dëkk bi ñuy recensé ñii ci kaw ay étage la ñu dëkk xamuñu woon ne ay daaraa nga fa ñooñu ñoo signalé wu tey mais du caagee ne projet bi dafa ñëw rek ñoom ñu ñëw yokk ci déedéet dañ leen a fàttee recensé loolu moo moo moo waral surtout loolu dafa toppoon dafa bokkoon ci projet zéro mendicité bi maire ne ñaari post yi fi nekk ku ci nekk dina fa dugal un million boo xam ne dañuy defal taalibe ay soins yoo xam ni projet bee koy jël euh, utal nañ leen tamit ay carnet tey jii joxal nañ leen seen ay carnet de santé ñoom ñëpp dama ne la même bu projet bi bu fi projet bi jeexee te ñaanu yàlla sax mu jeex dañuy ñaan yàlla même bu jeexee monsieur le maire continuer di nekk ci Pikine di nekk ci département de pikin di ko continuer ak ñi nga xam ne moom mooy daara yi ndax daara yi ñun ak ñoom depuis ci premier mandat monsieur le maire la ñu nekkoon ñun kon lii day continuer incha allahu rabil ku ko xam ci bëggëm Pikine noor ku ko xam ci bëggam ak pikin lii duñu ñaan yàlla rek mu yem ci projet waaw mi ngi wàññeeku mi ngi wàññeeku lool ndax ñi fi nekk ànd ak ñun ci partenariat bi ñoom xam na nañu li nu bëgg ba ñu ngi ciy àndal meneen taalibe yu ngeen fi gis xam leen ne feneen la ñuy jóge dugg biir Pikine Nord mais nag wax dëgg neex yàlla dootul loo xam ne ci biir Pikine Nord ngay jànge mais déjà dinañ teg observatoire boo xam ne de veille lay doon boo xam ne au niveau de la commune beneen taalibe bu jógee ci beneen gox dugg fii dinañ xool nu ñuy doxalee ak ñoom seeni sëriñ incha allah di leen sant rek di leen gërëm Fatou ndax ñu mel noonu tey bari nan fi ay bonne volonté yoo xam ne toujours ñoo ngi fi di jàppale commune bi ndax ñoom ak monsieur le maire benn la ñu donc dañuy ñaan yàlla lii tey buñ koy programme waat bis na ko tey bi lañ koy tàmbali di ko préparé waat pour déwén te ñun ak yéen ñoo fi nekk yéen ci ak euh, projet zéro mendicité bi ci ngeen bokk euh, monsieur le maire bi mu koy teg daf leen cee boole donc maa leen ko wax tey nan yàlla may ba déwén di ngeen gis lu lu ëpp lii ngeen fi gis ren allah jërë ngeen jëf ah vraiment parce que monsieur le maire moo mel noonu monsieur le maire toujours bay day buy dimbali day dimbali ki nga xam ne loxoom jotul ci ginnaaw di woo nag population non non di woo di woo population Pikine Nord bépp ndaw ñi fi yeewoo maa ngi lancé appel ndaw yi yeewoo biir Pikine Nord nañu xam ne monsieur le maire Amadou Diarra liggéey moo ko tax a jóg nekk na fi maire nekk fi député nekkaat fi maire poosam tegu ko fi di yeewoondoo ak waa gox bi ñi xamul nanu jege commune bi ñu xamal leen ñu ñëw ñu ànd ak ñoom defar gox bi bu fekkee ne li ñuy woote Pikine moo leen ñor Pikine Nord a leen ñor nanu ñëw ñu def participation citoyenne ñu ànd ak ñoom liggéey loolu rek laay woo ndaw ñi nga xam ne ñooy yeewoo biir Pikine Nord merci jërëjëf